je vais y venir on nous a pas permis de le faire je vais raconter bi ñu ñëwee ñu déceler ñu loolu notre informaticien a demandé au greffier de revoir de de revoir en tout cas ce qui se passe pourquoi nous ils estiment que ñun jotuñu amuñu liste bi nga xam ne laaj nañ mais subitement le président du conseil constitutionnel a dit non il n'en est pas question aller euh, imprimer le comme et, a foutu dehors pour excusez-moi du terme mm -hmm. donc elle c'est le président du conseil constitutionnel lui-même qui a la candidate la euh, candidat à la candidature aussi important c'est-à-dire aujourd'hui quelqu'un qui a pris des mois deux ans pour travailler sur sa candidature à l'élection présidentielle ñëw mënoo ko may benn dix minutes pour mu xool rectifier ce qui prendrait pas parce que les informaticiens yi gis affaire bi yëpp ñi nga xam ne affaire daf leen jaaxal li ñu wax mooy lii c'est on peut le corriger parce que fichier bi moo encodage on pourrait le corriger en 5 10 minutes mhm. ils ne nous permettent pas mais vous êtes plusieurs dans ce cas fii lañu fa monsieur Samba Gaye euh, moom aussi euh, derrière moo Issa je pense moom moo dirigé le le ñi nga ne seen fichier inexploitable mais pourquoi seen collectif dem déposer mhm. seen seen recours yéen nga ne vous allez tu sais on ne peut pas déposer collectivement. quand vous faites une réclamation sinon quand tu fais la réclamation tu le tu, tu fais la réclamation à titre personnel en tant que candidat. Mm-hmm. on est solidaire comme je l'ai dit ak tous les candidats de l'opposition ñi jàll ak ñi nga xam ne dañu leen recalé mais ñun on on pense et on considère qu'on n'est pas recalé parce que c'est sur la base de quelque chose qui est en tout cas une irrégularité notoire et claire c'est-à-dire on te rajoute des choses on sur sur sur ta liste et on te t'élimine la base de ces rajouter c'est comme si dafa am euh, nga nga bam euh, kii Assane rajouter c'est comme si dafa am ñoo xam ne ñoo ñu ñoo ko dugal yéen ñan lan ngeen jàpp ndax ndax ndax euh, problème technique la rek wala da ngeen jàpp que ni dafa am loxo yu nekk ci ginnaaw ñun on suppose la tu sais hmm. pourquoi docteur Abdourahmane Diouf dit les A de la honte gàcce yi c'est parce que Sénégal tey fi mu tollu ci les nouvelles technologies de l'information de la ci xarañte ci informatique tey aujourd'hui on a les fintech qui sont Sénégal est un numérique en Afrique de mm-hmm. l'Ouest ñoo xamante ni c'est des cadres de l'informatique souveraine comment est-ce que aujourd'hui on peut arriver à un moment en tout cas une institution aussi importante bu conseil constitutionnel mm-hmm. ñuy am ay erreurs ci ci ci ci un on suppose que fichier bi moo am problème on suppose en tout cas le notre notre fichier a été euh, euh a été altéré. mais yéen yéen fichier bi ngeen doon li ngeen déposé conseil constitutionnel parce que da ko fay teg. Hmm. ay jours après ñu contrôler li ngeen déposé conseil conseil constitutionnel est-ce que loolu yéen xool ngeen ko amu ci woon bi ngeen koy déposé euh, bi bi leen ko bi ko basé Camara ak commission bi di xool ci ngeen gis ay yokk ci wala déet. ay mi ngi ci yokkoo au moment où on transfère les fichiers. Hmm. ci ordinateur conseil c'est-à-dire ñun bi ñu ko koy jox. tout était ok. xoolal. Euh, mais c'est la même chose que fi ñëw nettali aussi monsieur Samba Gueye. c'est la même chose c'est un cas spécifique. c'est-à-dire euh, le dépôt euh, bi par exemple Mimi Touré déposé. Mm. moment bi muy déposé. Mm. signé jox nañ ko benn décharge. Mm. boo xamante ne effectivement Saint-Louis ak nombre de parrainage yu Saint-Louis bi mu ngi fa. greffier bi signé ko. est-ce que yéen tamit mën ngeen prouver que ni moment bi ngeen di déposer avec la signature du greffier en chef que ni a noonu nekku ci woon est-ce que loolu mën ngeen ko prouver. mais nekkoon aujourd'hui est-ce que ñun on en tout cas. Euh, cette manque de oui, oui, mauvaise foi non, de foi dire que bi laa waxuma waxuma bonne ou mauvaise foi man je, suis d'accord que vous êtes de bonne est que mën ngeen ko prouver le mandataire aujourd'hui bi muy jox Euh, euh, en tout cas le, le, le fichier au greffier pour mu transférer ko c'est à partir en tout cas pas à partir du moment où on l'avait mmh. c'est le passage vers le logiciel bi ñuy transférer fichier bi ci logiciel bi lañ génne loolu mais ñun ñoom war nañ am copie bi te boobu seen mandataire mi ngi mi ngi mi ngi taxaw il était devant il était comme ah, d'ailleurs il a demandé à revoir parce que c'était étonnant parce que que parce que bu fekkee ne ñun tey Papa Moussa pour répondre un peu à question mm-hmm. ah yooyu dafa amoon ci suñu fichier cest dire ñun xanaa au dernier moment même daal di déposer dinañ mën a rectifier xool ne lii parce que à à circonflexe pour nga bind ko ci ci ci tur da ngay def contrôle euh, da nga def trois appuis trois ci sa clavier pour am contrôle circonflexe bi ak A bi si boppam et puis pour date yi également nga xam ne am nañ ci am nañ ci cinq mille c'est-à-dire aujourd'hui euh, dañ yóbbu dat français yi jour mois année ñu changé Euh, mois bi indi ko ci audit bi comme date anglaise maintenant ce qu'on a constaté et qui qui qui conforte suñu doute ñun mooy bu fekkee ne euh, euh, mois bi dafa romb jour bi dafa romb 14. Mhm. du ko changer parce que mënul am mois plus de 14. Mmh, mmh. je sais pas si vous voyez. c'est-à-dire on a eu ces erreurs là sur 5000 parrains. 5000 5000 parrains je vous dis sur les A circonflexes on en a eu 1000. Hmm? mais loolu logiciel bi la wala ñoom. de mauvaise foi ñoo ko modifié pour ñun nous pensons que logiciel bi logiciel ba nekkoon format anglais. parce que tu sais pourquoi nous pensons que logiciel bi la. Hmm. au moment où euh, euh, Mame jaaw Diao dugg bay génn. vous savez, jël na moment yàgg entre Diomaye et pendant 30 minutes ils étaient en train de régler des choses ils avaient dit que le truc dafa am bëggee. système bi dafa bëggee. Mm. c' est ça looloo ci ñun. et c' est d' ailleurs docteur Abdourahmane a de la logiciel boo xamante euh, d'une manière inclusive et participative ñi nga xam ne ñooy les informaticiens chevronnés de ce pays que ça soit des institutions des organisations ñu mën a def. logiciel boo xamante ni tey mm. dina permettre. des élections en tout cas des vérifications de parrainage yoo xamante day jaar ci yoon. sànq yi en coulisses Issa ngi doon expliquer lu am solo parce que mënuñu dem ci élection yu gën a sérieuses yu mel ni élection présidentielle. Mhm. ñu recalé ay candidats juste parce que ay logiciels dafa bëggee. Mhm. alors c'est pas de leur faute. est-ce qu'il n'y a pas temps ñu départir beneen créé waat beneen entité boo xamante ne day occupé wu exclusivement tout ce qui est du nekk sous tutelle conseil constitutionnel sànq yéen a ko doon waxtaanee yaa ngi Issa. pour paraphraser docteur Abdourahmane Diouf je dirais même pas A de la honte mais le parrainage de la honte tout court parce que euh, au-delà des A il y a d'autres cas beaucoup plus euh, bon drôles. Mm-hmm. parce que quand Mimi Touré moom ñu ñëw signal ko ne ko déposé nga 5000 3386. le greffier en chef maître Ousmane Ba signé ko. Mm -hmm. elle revient ñu ne ko lii nekk fi soit kon léegi dañ ne greffier bi moo signé lu faux. Mhm. wala tey jii da ngeen ko jox lu faux. Mhm. Euh, te pour une élection présidentielle candidat nekkul ci fichier bi yoo xam ne. Euh, euh, te ñoom ñu ne ku nekkul ci fichier bi duñ la jox fiche parrainage. ñoom ñoo ko wax c'est <laughs> ñoo ne ku nekkul ci fichier bi doo am. attestation CDC am ñaar ñoo xam ne nekkuñu te jox nañ leen fiche de parrainage. Mouhamed Ben Diop je l'ai personnellement. pour xam la véracité de ce qui euh, ce que les gens sur qui mais euh, moom. après la nekkoo ci fichier dafa moom xam nga li euh, il il il vote au niveau de la diaspora moom Mohamed Ben Diop. li mu dugal ci diaspora bi bëriwul. c'était quelque chose ay 200 ay yow buñ ko ca defee ay rejet dina ko mën a vérifier quoi. Mm-hmm. mu vérifier ba yem ci turam. bu mm-hmm. vous rendez <laughs> compte donc euh, finalement ci yan élection lañ jëm. Mm-hmm. avec ce fichier là. boo xamante ne euh, man maa ngi doon euh, compter depuis euh, ki kan moo njëkk a jàll. Boubacar Camara il est sorti avec six mille et quelques ñu ne ko ñoo xamante ne nekkuñ ci fichier bi même ñi ñu validé sax am na ñu ñu ñoo xamante ne nee nañ nekkuñ ci fichier bi. alors oui bien sûr Boubacar Camara moo njëkk génn. mais xam na ñoom tam dañuy dem ci possibilité naa dem élection rek. amul doublon mais ñi ngi dem nar a dem ci élection yoo xamante ne. xam nañ moo nar a posé. mais jéem naa fexe un peu de manuser pour jéem a wax ne nekkuñ ci yëpp ñaata lañ. près de 500000 sénégalais ñu ne la nekkoo ci fichier bi. 500000 500000 sénégalais. ëpp na ko carrément. voilà donc, donc parce que euh, quand Diomaye vient ñu ne ko mille mais 12000 yooyu noonu dañuy war a dem bon jour 25 février war a dem ci mbañ gàcce ñu ne la nekkoon. mais Sénégal fii sax ay ak tur yoo xam day am accent circonflexe accent grave c'est euh, tey gis nañu aussi seen collectif bi euh, naam ñoom ñi ngi déposé recours de manière individuelle conseil dem nañu fële union européenne. voilà union européenne dem. dem kon combat bi léegi c'est à l'international lañ ko bëgg a yóbbu. nee nañ ngir jéebaane ji parce que Aminata na ko ne du pour euh, union indi ay solution mais dañoo bëgg ñoom ñu xam li xew ci processus bi parce que dañoo bëgg jéebaane nguuru euh, Sénégal déjà eh, Abdourahmane Diouf expliqué na ko ak informaticien wam yeneen candidat yi aussi ku nekk expliqué nga li nga xam ne moo ci xew gis nañ nit ñi gis nañ aussi capture d'écran yi dugal nga xam ne moo ci yokku mais juste le combat est que xalaat ngeen que ni combat bi nga xam ne moom la les candidats ni ngeen ko tuddee candidats spoliés euh, di di amal dina nekk combat boo xam ne bu aboutir lay doon su fekkente ne conseil constitutionnel ci boppam a waxaat ci ay décisions yoo moo ko jël tu sais comme combat nekk déjà le premier combat ouais. c'était de Euh, deuxième combat bi mooy injustement quand on est recalé wala voilà, injustement quand euh, <laughs> ñu dindi la ay mbir yoo xam ne recalé sur la base de ça alors que c'est tout à fait tout à fait injuste wala ñu ne la nekkoo ci liste électorale yi loolu tam beneen combat la donc on est solidaire avec l'opposition vis-à-vis de ce combat là que nous voulons mener monter à la face du monde wan adduna bi yëpp ne Sénégal tey mi nga xam ne xam nañ ko ci ëpp numérique ci ëpp informatique tey voilà où nous en sommes avec un fichier électoral cest important d'une criticité de niveau incroyable parce que on parle des élections de la euh, président de la République on parle d'une fonction aussi importante que le président de la République comment est-ce qu'on peut se permettre en tout cas des erreurs très très banales puissent y arriver donc ñun que ça soit ñi nga xam ne jàll nañ nous sommes ñu nous félicitons nous ñun ñi nga xam ne recalé nañu duñu manière injuste nous sommes solidaires et nous allons mener le combat lépp loo xam ne suñu yoon may nañu comme ni ma ko waxee ci Alassane Sall li ko yoon may may na ko def na ko comprendre nañ ko ñun tam lépp loo xam ne suñu yoonu réew may nañu ko nous allons le prendre